ñëw nañu taxaw nañu foofu lu mel ni comme noonu lu mel ni comme ay célébration daf fi dee am mm-hmm. lu mel ni comme ay gan yu war a jóge ba Sénégal di fi ñëw ñëpp teeru leen sénégalais catholique yi war cee bokk amoon na jamono boo xamante ne bi cardinal ñëwoon na fi di mbokk fii te Théodore Adrien Sarr sénégalais yëpp génnoon nañu teeru ko waaye sénégalais catholique association amuloon jamono boobu rafetlu ma ko woon bi ma fi nekkee nag xaw fi yàgg tuuti yu mel noonu dama dee bëgg sénégalais yi feeñ ci ñun nag ci suñu biir sociale bi tamit dama bëgg mujj ciy am ñuy dimbalante ci suñu biir di xamante ku ci am sa communion ñu wuy si la ku si am sa mariage ñu wuy si la ku ci nekkul tamit te nekkuloo ci tànk boobu tamit ñu waxtaan ak yow wan la nekk dundin chrétien lii la bokk na tamit ku ci feebar ñu jàppale la bokk na it li nga xamante ne duñ ko dee faral di tudd nax bëgguñu ko noonu waaye moo ñun ñoo ànd mooy bu ñu fi yàlla jëlee yàlla na yéex ñu war laa mën a jàppale wara mën a seet naka la ñoo def di bi na dafa war a dem Sénégal ci ban anam la war a demee Sénégal naka la ko catholique yi war a gunge taxawaay yooyu moo tax association bi jóg daanaka daal social daal <coughs> waaw loolu rafet na loolu rafet na xëy na euh, Adrien dina am lu muy saanu ci ci euh, lette boobu noonu. Ah, sama yaay ji lu mu wax euh, moom mu am initiation initiation boobu bu mu ko amee euh, mu ooñ ñu ne ñun ay doomam lañu te am nañu si ay yëngu si yum ñu gis euh, mu ne nag foog mu waxtaan ak ñun bu mu egsee waxtaanam boobu mu neex ñu lool. ñu apprécier euh, euh, na initiative bi ñuy dox si loolu si tamit lañu sosee loolu euh, lu ma ci gën a neex moo di gis nga dox soo koy dox nang si dox ah ful ak fayda te moom fulal na ko fayda na loolu te ñu ngi si wéy ax nu mu waree si lu mu loo laajte nag si lan la ñuy yëngu comme nu ma ko waxee social ñu xamante ñu tamit dund suñu diine surtout ñu dund suñu diine katolik chrétien loolu am na si maana lool lool lool comme nu mu ko waxee. sénégalais catholique yu bëre ñu ngi fi réer nañu ni lan euh, fi moo ne fii seen kër la nga gis euh, nit mu jóge Sénégal yaayam mu ngi fi kon est-ce que kookule xalaat naat leneen mu ngi si këram donc kon nag Euh, ñu ngi jaajëfal réew mi lool ñu si ne tamit yàlla na si yàlla def jàmm euh, jàmm nguur gi am jàmm suñu président bi am jàmm muy docteur Yaya Ejeje jàmme parce que moom su amee jàmm rek ñëpp am nañ jàmm euh, suñu njiiti religion religion bi tamit am jàmm ñu nekk si gannaaw mun na di japp ànd ñu dox ñu dem ci kanam waaw loolu rafet na jàmm su amee rek ah, foog naa ku nekk dina xam fu mu jëfandoo daal mm-hmm. ah, léegi nag ah, dama bëgg ñu seet ay seen programme yoo xam ne eh, dañ ko dee fat di def at bu nekk waaw xam nga association suñ ko taxawalee rek il faut ñu wax mbirum xaalis ndax jamono bi moo demee noonu dara mënta taxaw te xaalis amul ki la taxawal nag ne léegi dañ dee def at bu nekk ndax association bi day am cotisation fifty dalasi la every month carte bi fifty dalasi la hmm. at waaye gis nañu ne léeg-léeg dañ dee jànkonteel ay jafe-jafe yoo xamante ni bu ko bëggee solve du dee yomb si ñun ñu ne léegi nag nañ dee def programme baal reform ñu defoon ko daaw février daaw <coughs> ren ñu ci jubluwaat encore pour que ñu mën am dara loo xamante ne li ci suñu kees pour suñuy soxla yi nga xamante dañ ko dee jànkonteel ñu mën ko cee sol loolu la association bi am ñi foos at bidal program programme bi ñu amagum ni 2014 bi euh, soirée la ñu bëgg def reform danse kañ la on the 7 février ajjuma dugub bi 100 dalasi la dinañ fa jaay lekka jaay fa ok euh, foog naa loolu lu rafet la ah, léegi nag fu mu nekk nii ah, suñu waxtaan bi eh, fii lañ ko emalek waaye naa la bàyyi ak kàddu bu bi ah, nga waxtaan ak sa sa sa mbokki Sénégal ak sa mbokki Gàmbi yoo xam ne ñu ngi dëkk fi jubale ko ci programme bi d'accord man fi may waxee fu may tëjee suma kàddu mooy maa ngi invité ñépp bépp Sénégalais bu yëngatu fii ak bépp gambien suñuy doomu bàjjan lañu suñuy doomu nijaay lañu ni ko Adrien waxee Gàmbi réewu jàmm la Gàmbi réewu mbokk la amul benn sénégalais bu nekk fii Gàmbi te amuloo fi mbokk doomu nijaay ak doomu bàjjan moo fi nekk maa ngi woo ñépp nag waaye ràcc jëmale sa kanam dañ ko dee wax mooy tax mu dëll ràcc jëmale sa kanam gi boo dégg ma di ko wax suma doomu ndey inquisiteur yi laay woo fa laa bokk gaa waa Fajikunda nee nañ ma duñ ma bàyyi ginnaaw ñoom Pauline ak ñoom min uh, kii Elisabeth uh, déedéet xale bu jigéen bi Elisabeth nee nañ ma waa Elisabeth uh, nee na ma Fajikunda moo ko nar a <coughs> waa Saint-Thérèse tamit ñoom Christine ak ñoom Hélène mi nekk foofu Ocha nee nañ ma Sainte ko nar a feesal waaye man nee naa leen na kisito laa bokk <laughs> te xam naa ne Kizito moom bu ñu nee chorale bu neex Kizito la bu ñu nee concert bu neex kisito la bu ñu nee messe bu neex Kizito la woo naa waa Kizito ñu ñëw wuy si ma woo naa leen góor ak jigéen mag ak ndaw nañ ma ñëw wuy si man ñëw support ma ñëw jàppale ñu sunu mbootaay bi nga xamante ne bébé la mbootaay bi juddu ñetti at rek la mbootaay bi amagut ñu ngi koy bëgg a suuf su xeet ndànk-ndànk am naa ci yaakaar trop si waa euh, ngañ dafa am loo bugg a doole ci kàddu mujj bi si mbokk yi ñoo xam ne ñu ngi par euh, pariage pour ñëw ci euh, danse bi man de lu ma siy wax moo di danse bi ah association bi du sénégalais ñoo ko moom parce que nekkuñu Sénégal fii lañuy dund fii Gambia te lépp lu ñuy def rek ci cooj bi lay jëmale du eh, utiw xaalis pour suñu bopp ku nekk mu ngi liggéeyal sa bopp dañu uti si xaalis pour jëmale eh, chrétien yi ci kanam eh, mu dem ba doon NGO parce que ñu ngi séntu lu mag euh, euh, vision bu si kanam kon nag dama ne catholique chrétienne Gambia nañu génn ñu support ñii ñu leen ooni suñu génnee ñu doon ñëpp ñëw Euh, lu ñu bëgg ci nañ ko def te euh, ji soo sandee pepp pepp dugub si suuf su soo ko sandee roose ko dafa nëb su nëbee dafa sax su saxee nag euh, dafa ji te benn pepp nga sax waaye looy góob du doon benn pepp kon nag euh, cax boobu lay caxal euh, mbokk catholique yi ñu xam ñu ñooy ñan te suñu baay boobu nee ñu ñooy xorom àdduna kon nag nañu safal suñu bopp